d'abord dañuy euh, sant yàlla bu baax parce que euh, monsieur le ministre suñu déggee jàmbat yi yëpp yi nga xam ne dañ koy dégg depuis boobu ministre yi fi jaar yëpp ak tey li xew nga xam ne da ngay wax dafa commissariat dafa manqué fii dafa manqué fii je pense que effort bi ñu def pour dal ci kaw le président Ousmane Sonko et son projet le PASTEF suñu defoon effort yi ci réew mi du ñu toog fii di jàmbat boo boo seetloo 2023 sécuritarisme budgétaire la ñu am bu parlez de 500 milliards en quelque sorte te lépp grenade lacrymogène ak yeneen lañ ko mais ñun dañuy sant yàlla parce que on est bien à l'aise ci ex-Pastef amuñ ci benn problème te yàlla dimbali nañu Ousmane Sonko yàlla muur na ko alhamdulilah parce que 2014 ba tey mu nekk mu taxaw boobu ba tey kon kooku yàlla muur na ko loolu dañ koy sante yàlla dama buggoon sax rapport ANSD mu def effort mu jéem a recenser nombre de trondoo yi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko Ousmane am na sax trondoo bu jigéen à Touba lu wër laa lay wax loolu nag te trondoo moom ku ko tuddee rek jikkoo tax jikkoo tax ñu tuddee la ko kon président Ousmane Sonko amatul lenn lu muy wane moo tax foofu am pour la gouvernance électoral monsieur le ministre ana guitare bi gis naa la nga yor guitare naan ñu naan ko ngeen àndal nga naan euh, Macky Sall àndal waaye na nga fexe ba ànd ak moom parce que moom day dem. yow mënoo organiser suñu élection c'est clair parce que wane nga ko plusieurs fois que ne da nga far da far effectivement boo sañoon président Macky Sall ak gàngooram ñooy toog kon yow mënoo organiser ay élection déjà fichier électoral bi dañ ko war a mettre à la disposition wax dëgg yàlla ñi nga xam ne tey bi ñoo war a jongante gisuñu ko xale yi mënuñu jox sax seen carte d'identité yi débat gouvernance gouvernance électorale bi on y met beaucoup d'argent mais pour rek sensibiliser les Sénégalais pour leur dire dem leen jëli seen carte da ngay gis ne amul benn benn préfecture bu koy def amul sénégalais yi ci boppam ñooy def ay forum civil ay association ñooy dem ci terrain bi di wax xale yi dem leen ngeen ngeen ngeen jëli seen kii léegi par rapport ak sécurité publique bi xeexuñu xeexaa ñun ngir yàlla ak yeneen bi seen i grenade lacrymogène ak seen i gàngoor ngir yàlla denc leen ko ñu ñun xeexuñu de élection la ñu jëm aar leen sénégalais yi aar leen sénégalais yi ñun xeexuñu xuloowuñu élection lañ bëgg a dem duma leen duma yu métti comme d'habitude